dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi ko quotidien mu xëy di ñu xamal na ñu ki jiite réew mi di président Macky Sall jël na ay dogal yu yees maanaam deltu ginnaaw bu baax a baax ci lu jëm ci état d'urgence bi rawatina couvre-feu bii nga xamante ni maanaam bëri na ñoo xamante ni jamono ji mënatuñ ko dékku ak lu jëm ci transport interurbain bi yéenekaay gi nag xëy di samp ab laaj ne manifestation yi nga xam ne moo bëri ci réew mi mel ni tulleeg màlle xale yi wàcc di taal ay pneu di sànnanteek takk der yi ay grenade lacrymogène ak dàqante loolee ci boppam moo tax Macky Sall fas yéene deltu ginnaaw ndax li nga xam ne dégg nañ mu wax ko ci conseil des ministres bi maanaam transport interurbain bi dañu koy ubbiwaat te lu jëm ci couvre-feu bi maanaam dañu koy xoolaat yéen kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des mooy ci biir réew mi bëri na ay gox yoo xam ne askan wa génn nañ ci mbedd mi yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xamal lan ñu Macky Sall ak li nga xam ne gis na ko ci réew mi jamono ji maanaam muy raam moo tax jël na ay dogal yu yees maanaam yoxamal mbir ni mu gën a gaawee ci ni mu gën a gaawee moom la ko Macky Sall di defee Assane Samb xëy jël xalimaam ci réew mi ko dëjee nee na Macky Sall yoxamal mbir yi am lu mu bàyyi loolee ci boppam maanaam mënatul ñàkk loolee sañ bañ la ndax manifestation yi nga xam ne gis nañ ko ci Ndakaaru gis ko ci Kaolack gis ko ci Tamba mbir mi ma ngi ëppi loxo lii nag jar na Macky Sall daal di ci wax ci ni mu gën a gaawee yéen a di Libération mu xëy di ñu xamal laan ñu manifestation yi nga xam ne gis nañ ko fi ni ki démb am na sax ku ñuy wax ne dafa ñàkk bakkanam cee diwaanu Kaolack yéen a kaay gi de la ñàkkul bakkanam kooku Alioune Diouf la tudd oto police moo ko fiir waaye nag jamono ji li am ba des sama ngi ci diggante dund ak dee yéen a kaay gi di laas mu ñu xamal ñu Ndakaaru njaay jël jóob ni démb tàngoon na jër ndax bëri woon na ay quartier ci Dakar xale yi ñoo génn doon taal ay pneu doon daqante ak takk der yi doon defante ak ñoom ba mu saf sàpp état bu senegal démb maanaam arme bi la mujj génn armée bi la génn ñuy wayang wayang yi maanaam ci quartier Ndakaaru yi am na lu toll ci fanweer ak ñaar ci ay nit yoo xam ne maanaam teg nañ loxo niki démb ca Kaolack ndax mbir mi tàngoon na fa jër journal bi nee na état d'urgence be couvre-feu bi la ñeen ñenn ci askan wi di sàkku ñu jële ko fi journal bi nee na niki démb ci Ndakaaru ñaari tali di Grand Yoff di Xaar Yàlla di HLM di Pikine di Grand Dakar di mbuur di sali di Medina Baye gox yi yëpp niki démb doon nañu ko tàngal askan wi ñoo génnoon yéen a kaay gi de l'Observateur ñu fekk fa Jibi Diallo préfet bu Ndakaaru la mu xamle nee na jamono ji maanaam mënut a wax ci askan wàcc gi ñu wàcc ci mbedd mi waaye ci li mu mën a wax mooy askan wi ñoo war a yaru te bu ñu yaruwul mënuñoo xeex wàppi coronavirus yéen kay gi du Sud Quotidien mu ñu xamal laan ñu Touba am na lu toll ci soixante personnes yoo xam ne teg nañu leen loxo su dee Mbàkke am na lu toll ci trente-huit personnes yoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kay gi di Vox Populi mu ñu xamal laan ñu ni ki démb li am ba des mooy Dakar tàngoon na jër état bu Sénégal nag jamono ji moo yor cëggul guyam moo ko war a càmbara docteur Babacar Diop la mu xamle nee na kóolute gi nga xam ne moo doxoon diggante gouvernement bi ak askan wi kóolute googu maanaam moo dañ waral état bu Sénégal moo yàq googale kóolute ndax nag lëndëmaa yeeg looxoo rek luqi njuur yi nga xam ne am na ci lu jëm ci séddaleeg dund gi ak gouvernement bu Sénégal bi nga xam ne moo dëkkee wax lu dul dëgg askan wi loole moo tax jamono ji askan wi mënatuñ koo dékk te nag li ci kanam rawute bëta moom docteur kër Diop ne bu ñu waxantee dëgg Sénégal jamono ji moo amul njiit te lu doy waar moo xew ci réew mi li fi xew scandale la ma ko xam le ci yéene kaay gii de las journal bi du Sud Quotidien mu ñu xamal ñu experts yi nga xam ne ñoo nekk OMS organisation mondiale de santé ñoom nag tuumaal nañ état bu Sénégal nee nañ su ngeen gisee jàngoroy coronavirus di law ci réewum Sénégal bu ñu ko jiiñ kenn nañu ko jiiñ état bu Sénégal yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal laan ñu waa OMS ñoom tiim deltu nañ ginnaaw ci dogal bi nga xam ne maanaam jëloon nañ ko bëggoon a dakkal li nga xam ne mooy kiin bi yéen kaay gii di libération xëy ci Seydina Fall sali mi nga xam ne tëju nañ ko si kaso bi jamono ji may nañu ko ab liberté provisoire waaye nag xel daf saa daal di teye Bougazelli li mu am moom kese moo ko am ci réew mi moom ñu tuumaal ko ay mbir yu garaaw garaaw a garaaw ay mbir yu doy waar a doy waar ñu jekk-jekk daal di koy bàyyi te moo di Bougazelli maanaam kenn dégluwu ko ci ak xóotal te ñi nga xam ne ñoom lañ ko doon tuumandoo ñoo ñooñee ñëpp bàyyi nañ leen ci kaso bi te bu ñu wax waxantee dëgg Bougazelli mooy cerveau bi enquête bi nag li nga xam ne wane woon na ko maanaam kenn mënut ta wax ne Bougazelli laaliwul ci mbir mi yéen kaay gi di Dakar Times moom tim xëy mel lu waaru ci Seydina Fall sali mi nga xam ne dañu ko daal di libéré ci loo xamante ni xel daf saa daal di teye ndax Seydina Fall Bougazelli ñu ko gën a feebar rek ñoo nekk ci kaso bi ji ñu bàyyi leen fa lan moo tax Bouga Sali ñu bàyyi ka ñi nga xam ne ñoom lañ ko tuumal loon ñooñee ñu daal leen di ci kasu bi ci boppam li muy niru mooy dafa am ñoo xamante ni ay prisonnier pouvoir bi lañ ak ay prisonniers yoo xamante ni ci peuple bi la ñu nekk yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal la ñu en tout cas am ba des mooy Seydina Fall Bouga Sali bu ñu ko mayee ab liberté provisoire li ko waral mooy feebar bi mu feebar Dakar Times naka ñiy feebar ci kasu xam ne génn woon ko sax ci réew mi ngirub feebar bëri na ay jàngalekat yoo xam ne jamono ji dañoo amee coronavirus yéen kaay gi du l'observateur mu ñu xam laan ñu ñenn ca askan wi jamono ji mer nañ lool waa Sen'Eau ndax dañu leen andil ay facture yoo xamante ni cher na ba jéggi dayoo yéen kaay gi di Stades mu ñu xamal laan ñu Mbaye Niang mi nga xam ne moo yàkkamte dem Olympique de Marseille ndax su demee mën na koo toj loole le journal bi xëy di laaj yéen kaay gi di sunu làmb mu ñu xamal laan ñu Alioune Sarr mi nga xam ne maanaam ñenn ñi ñoo ngi def ay dëbbal dëbbal ngir jële ko ci bopp CNG waa Fass moo nekk ci ginnaaw bëgg a jële Alioune Sarr ci bopp CNG